aouzu bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi di ñu déglu ci Safina FM 98 point 2 bismillah leen seen émission Safina environnement bi ñuy amal saay su ne fii ci Safina FM ci studio El Hadj Omar Foutiyou Tall ñu ciy dalal nag ay naataango yoo xamante ne macha allah seen xam-xam màcc na ci li ñu leen fi woowee tay nak ñu am contenté am plaisir dalal fi une grande dame malgré son jeune âge euh bo xamantene mi ngi yëngatu ci li nga xamantene duñu du ma ne euh, faraluñ diko diko xam lu bari wala diko dégg lu bari mais mom da nañu faram-fàcceel inshallah taala lu jëm ci walu coaching ñu waxtaan ci xuus ci lu sore sore sore sore boo boobaa nag bu paré ñu xuus nak jëm ci li nga xamantene mom moy militantisme engagement ak euh, taxawayu jigen ni ci askan wi taxawayu jigen ni ci jamono ji ñu toll nii macha allah ci loolu nag mbokk auditeurs yi ñu nuyu leen sant leen gërëm leen ci safo gi ngeen ànd ak euh, rajo Safina ak euh, Safina TV ci YouTube bi tey nag ñu ngi jéggalu euh, defuñu direct ci YouTube bi mais incha allah ba jëmmi jamono rek bu neexee yàlla ñu nuyu kilifa kër gi di Thierno Hamidou Bane macha allah moo ko njaboot gi yëpp nuyu nañ ko ziar nañ ko bu baax a baax de l'autre côté ñu nuyu suñu technicien Bane Euh, macha allah moom ak euh, techniciens yi mu àndal yëpp incha allahu taala Mountaga Bane euh, chef des techniciens Samba si moom itam macha allah fu mu nekk ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko tatagal nu El Hadj Malick Guèye bu wàllu métal euh, mu jox nuyoo bi ki nga xamante ne moom mooy Baba Warga woon maire Ndioufa ñoom ñëpp macha allah ñu nuyu leen ziar leen maire Ndioufa waaw macha allah Safina mi ngi waajal sa programme bi incha allahu taala ko bëggee comme ni ma koy waxee saay su ne yow yaayu Safina nga yaayu Thierno nga donc boo amee programme incha allahu taala dañ ciy taxaw ni mu waree incha taala si loolu mbokk auditeurs yi ni ma leen ko waxee woon sànq tey ñu dalal une grande dame qui s'appelle Khadijatou Cissé di fondatrice euh, waxtaan coaching

macha ñu ngi lay fay di rafetlu macha sa teway fi ci kër gi macha ku nekk xam na jot yombul te sa programme macha allah ñëpp gis nañu tu es tout temps en activité tay ñu dalal la fi Khadija suma ma la waxoon nga tënkal ñu wax ñu kan mooy Khadija lan nga ñuy wax. waaw merci ñu ma wax ci Khadijatou Cissé ça va être euh, ça va être très rapide euh, bu ñu bëggee tënk. Khadija Toussissi c'est une jeune dame saint-louisienne bu ñëw de ci Dakar. Mhm. fekk ci borom këram. qui a ses enfants à Dakar qui a poursuivi ses études à l'université de Dakar fi laa amee sama licence en sociologie fi laa yeggalee sama fil fi la ma sama teraanga fekk fil mhm. allah fi laay sama Madame ci le coaching ak les lo à c'est en rapport avec euh, l'encadrement mhm. des femmes ak euh, activisme bi ñu mhm. dans le cadre du leadership féminin Ok, dans le cadre du leadership féminin. Nous avons sa présentation, on a senti a déjà été coach. Lan coach? Lan coaching? Ah, nga bu coaching c'est un mot français. Mm-hmm. baatu tubaab la. waaye coaching bu ko don wax ci wolof. coaching man dama koy gungé. Gungé. gunge. waaw. gunge ci fan gunge ci naka. Euh, ma def une petite euh, précision qui coaching Tam nañu dégg fii nit ku jox ben nit. Mm-hmm. conseil ñaar ñatt ñu ni que sama coach bi. <laughs> mais le coach du joxe conseil. ah bon. coach lu muy def donc. le coach daf lay bunge ci yoon bi nga xamante ni xam nga fi nga jëm nga ragal am na loo bëgg ñemewuloo ko ndax ay contraintes sociales ndax am na lu la tënk. Mhm. am na looy mbébét am looy nisër te ngay sikki sàkk ci noo koy defee da ngay dem seeti coach. Mhm. mu bunge la. Eh, ci am nu mu lay càmbare ci ay laaj ba yow nga gisal sa bopp li gën mm-hmm. boo tànnee yaag moom ngeen di waxtaan ci càmbar mm-hmm. ak ci laaj ba nga xam fooy teg sa tànk mm-hmm. muy bunge ba nga gis yoon mu lay bunge ba nga jàpp donc su ma la déggee Khadija coach du la yóbbu mais daf lay gunge yow yaa yóbbu sa bopp yaa yóbbu sa bopp

bu xamé lan moy sa soxla ngeen tënk ni ñun dañu am ñaar ñett jakarlo ok donc ñaar ñett jakarlo bi coach bi moo koy déterminer wala c'est en fonction de de la personne nga koy déterminer. en fonction de soxla bi. parce que amna na soxla yoo xamante coaching laser lañ koy def. fat fat on règle le problème et on passe. Euh, coaching laser lañ koy def yoyu am na soxla yoo xamante ni dafay laaj ñu am ñaari jakarlo am ñett.

lii mooy sa soxla man Khadijatou Cissé mhm. maa ngi tënku ak ñuma ci engagement wu bunge ko ci nangam ak nangam ak nangam bunge ko ci ñaari jàkkaarloo bunge ko ci ñetti jàkkaarloo loo xamante ni dana dem ba ñaari weer ba ñetti weer mhm. jàkkaarloo bii ñuy ànd maag moom lépp loo xamante ni mooy sama kemtalaayu kàttan ci bunge ko danaa ko ko defal waaye lay juddu ca jàkkaarloo ba ci moom lay jóge donc da ngay gunge dama lay bunge mais yóbbuwoo ko yóbbu moom moo yóbbu boppam voilà exactement léegi suñu signé loolu contrat nga téye kayit ma téye kayit mm-hmm. ñu soog nag tàmbali sunu jàkkaarloo ma ak yow su ma la déggee ni nga expliqué doon na mbir mu am solo mais boo ko waxee ki nga xamante ne une certaine personne dana ni est-ce que li wax du yeufu tubab ay coaching ñun xamuñu ko est-ce que lolu a importance ci nit c'est très important xam nga tay coaching bi dañ ko conceptualiser manam tubab bi dafa am numu ko nous tek ko mais ñun sanu nous coaching na fi. ci naka. lan lay jëriñ ci société bi rolu Moy ku ne ci kër am nga lo xamni mëno ko waxtane ak sa yaay wala sa papa wala sa mag nga dem seeti sa bajjan bajjan bi dula dula dula la conseiller mais dana la laaj mbir mi la ka sabab fa mu jóge nat la xol fo ci tollu mu xol na mu la cey bungé lan moy indi bu jëk ba ku jël soxna maye ñëkke moy hmm. pour que nga am fo xamanteni di nga fa wat pour ñu lay bunge ci yenn situation yi nga xamanteni yang yaa koy dund ci sa nek ok donc lool defu ñuko rek euh, fortement comme ça là donc amna ay valeur yu taxone ñu tek ko pour accompagner société bi. bu baax dafa fekk ni ñun xam nga dañu nek ci société yu nek am tradition orale. Mhm. lépp dañ koy waxtaane dañ koy wax mais binduñu ko mais bu doon lu ñu bind ca njalbeen ba ci ñëkk ñëpp ñi jëkk def wax waxu ñëkke ak bàjjan di muy taxawe mhm. yu bari dañ ko gis ci livre Abdoulaye Bara Diop la famille wolof amna yu bari yu mu ci wax mhm. mais duñ ko approche jëlee ju ko ci approche. donc suñu ñak bind ak suñu ki oral daf amna galankot suñu vécu tey. Euh, pas forcément pas forcément mais tey bu ñuy wax waxu coaching man damay faral di wax ci accompagnement yu ñuy def man damay tropicaliser sama coaching maanaam dama koy tolloole ak sanuy perception parce que dafa am yoo xamante ni tey boo ko bëggee wax nit ki te nit ki mënoo ko ko wax ci kàllaamaam mënoo ko ko wax ci ngëm-ngëmam. Mm-hmm. ak li tolloog moom dafay am lu des. Mm-hmm. tay amna ko xamanteni bu indil la waxtaanu euh, am ndax gis-gisam ak ni mu bëgg mhm. ak ni environnement am problème bi nga ki bëgg ba des croyances limitantes qui aada ak teunk ke ba ñamewul mhm. blocage am lo def ñu ko ñu am jugement ba doo ñeme dem mais ku mel noonu bu ñu koy encadrer di ko accompagner dañuy jël des outils du coaching. te kooku nécessairement dafay soxla accompagnement. ah évidemment évidemment di nga gis fii koo xamante ni tey day na ci benn environnement bi nga xamante ni am des codes mooy am nañu nu ñu tënkoo. Mhm. ba nga xamante ni ku yewu suba gisee neneen ñu am la xoolee ku yewu suba xalaate na neen ñu am nañ la xolé donc des barrières du ñuy def yo xamantene ne ça enveloppe la personne il y a des codes mhm. yi nga xam ne da lay tënk moom la wax les croyances limitantes ay ngëm-ngëm la mais yo té lolu bari na fi nag dé soxna Xadijatu mais moy moy moy mo ñuy mo ñu mo ñu tardel sax lañuy mëna wax parfois mhm. si si je pense que le mot n'est pas trop fort du tout euh, parce que da ngay gis nit ku nekk ci communauté mais communauté bi day am lu mu gëm ak lu mu tënku am ay code yu mu teg ba kii jëkku jóg ni xalaate naa neneen wala gise naa neneen on te jette la pierre. Mhm. duñ la déglu. déedéet. mais ku mel noonu tey day dund njaaxte day nekk ci situation bu ambigu. Mhm. xelam day jiixi jaaxa. danay dem wuti coach mu accompagner ko pour que mu xam que ni moom ci li mu nekk nan la nan lay gisse bopam nan lay yegge bopam ak stratégie lay mettre en place un moments que définir le ba djubok bopam djubok ay mm-hmm. ay bokul mm-hmm. ak ki nga xamni tay budul coach bo ni dama telle situation la ah bu sama da nga que ah man de xalaat na nga que xelu bopam la lay jox au lieu que mu gungé la yaw nga génn ci situation bi nga nek mais xelu bopam la lay jox té lool mën na am yenen répercussion ci nit ki mën na jur yàq-yàq parce que té bu juré yàq-yàq mën nga ni diwoma ci dugal diwoma santone li diwoma xalat lool li hmm bo ñëwé ci coaching bi nak ci chambar gi ngeen di waxtane yak mom ci jakarlo bi dana lay poser ay question di la laaj di la laaj di la laaj ba yow ci sa bop dina am fo xamni bo fa di ngay am une prise de conscience. et tu trouves réponse à tes questions. tout à fait. donc euh, suma le la donc euh, coaching amna importance. importance euh son hadija le pourquoi la bëgg xam c'est lié peut-être à ton orientation sur le plan des études orienté à l'université de Anta Diop nga def sociologie moo le poussé à ce que nga def coaching wala Khadija dafa nek meuse nek peut-être euh, un enfant rebelle si je peux le dire mom bu nit ñi doxale ni day wax day saytu pour voir le pourquoi mu door a adhérer à la cause lu xew. ma tambali ci fi mujj bi dama meuse deñ kumpa nak mm-hmm. dama deñ kumpa dama le fond des choses depuis toute petite dama ma lépp lu may def que mu am résonance ci ça fait sens chez moi depuis toute petite et je pense que ce tax ma def sociologie c'est mon premier jàng et bien après je m'intéresse à l'humain je m'intéresse à l'humain et j'ai voulu aller vraiment au fond des choses je me suis rendu compte que coaching bi moment donne euh, mooy donne, yon bi may permettre ma nek près des humains près des hommes et que moment apporter quelque chose aussi aux hommes et bi may def coaching bi je me suis fait coacher dañ ma bungé wan ma yoon nan lañuy bungé nit et bungé bi du ci ay nit rek ni jël ben particulier mhm. da ngay accompagner les managers coaching da accompagner les leaders mhm.

mu lay fàttali fàttali yenn yi. Mhm. waaw loolu daf ciy baax. daf ciy baax macha allah loolu ci coaching bi euh, qui te ramène à l'humain à la condition de la personne donc est-ce que lolo amul soubassement qui c'est le fait que nga dugg ci militantisme dugg ci droits humains pour gunge nit ki est-ce que lolo n'est na loo xamante un déclic bi nga xamante ne pousser vers ça. peut-être peut-être mais li ma ci mën wax mooy gis nga militantisme bi bi may jàng sociologie samay premier cours en genre avec euh, madame Fat Sow Diagne maa ngi koy nuyu au passage mm-hmm. da ngay yëkk kenn ko jigéen ñi am nañu taxawaay mais taxawaay bi des na nga gis ni ko jigéen ñi soxla nañu ku leen bunge te ñu nekk ci société bi nga xamante ni jigéen ñu bari seen jàng sorewul e ñàkk jàng boobu dafa am mu leen di gàllankoor ok bu ñu bëggee jigéen ñi am taxawaay mm-hmm. jigéen ñi am fu ñu àgg kon day laaj mu am nu ñu leen bungee nu ñu leen bungee mm-hmm. parce que nañ leen di bungee dafa am nu mu war mel ak nu mu war demee Mhm. du ñu jóg rek ni leen ay wa il y a des préalables à respecter wala à nañ leen ku ci nekk ci nañ lay bungee dañ koy contextualiser parce que nañuy bungee pulaar bi mënuñu ko bungee séeréer bi ndax ku ci nekk ak contexte ba nga nekk ak ngëm-ngëm ba nga am. ak ay réalités ak réalités yi fa nga nekk la mu laaj. Mhm. il foog ñu ñëw ba fa nga nekk xool la la mu laaj càmbar fa. xol la fay galankor xol lañ soxla mën leen and ak ñoom bunge leen mhm. loolu beneen dimension la beneen dimension la mais ci tënk ci tënk quand je dis l'humain c'est la personne en général mhm. muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw mhm. muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw mais def nga ci particularité tu as un penchant peut-être vers euh, les dames pourquoi les droits des femmes. Oui, oui. Euh, les droits des femmes parce que d'abord Nous lañu ñu gis ñun ñëpp yaay yi yiñ et di xool ba tey sont ñi gi les cas de viol et de violence euh, le manque d'autonomisation euh, pauvreté mais surtout la féminisation de la pauvreté Il mhm. y dafa des yoo qui ni encore la yu dafa dafa dafa tiis dafa tiis di ko chaque jour Même mhm. à mon niveau euh, ça n'a rien à voir je dis avec le coaching je me suis investi très tôt ci bunge ay donc c'est un choix de vie c'est un choix de vie di bunge ay De di leen de di de di Bon, defuma coaching. Mhm. donc suma Donc, la waxone suma si je mettais la casquette de féministe sur ta tête ding ko nangu. bu baax mais ak nan la ñu féministe. merci lan moy féminisme. yow sa entendement en tant que coach en tant que femme en tant que leader lan moy féminisme. dama lay jëkk wax ñu ah, man je suis féministe féministe quand il s'agit de dire que le féminisme, c'est défendre les droits des femmes. Tout Je suis féministe. Je suis féministe quand il s'agit de promouvoir le leadership féminin. Je suis féministe quand il s'agit de mettre en avant mon authenticité d'être femme. je suis alignée à mes valeurs. Alignée à tes valeurs. Alignée à mes valeurs. Féministe. Ah oui. Donc, définition littérale ou latérale du mot féministe lan ngay wax nit ñi loo xamante ne mën nga ko teg seen loxo pour les convaincre parce que le plus souvent quand on donne le mot féministe les gens euh, dañ koy jël d'une façon vraiment je dirais pas péjorative mais quelque chose de de de de léger ou bien de destructrice. xam nga loolu yëpp dañu koy dug tënk ci wàllu communication tey féminisme jàpp naa ne suñu ko doon waxtaane waxtaane bi nga xamante ni ñëpp dinañ ci mànkoo déggoo ci nangu ko mhm. dañu naan nan la ñuy defaree taxawaayu jigéen naka la ñuy defaree taxawaayu jigéen nan la ñuy dëggale jigéen nan la ñuy li jigéen ba yi mu am ci biir askan wi mu matale ko mhm. man loolu laa jàpp ni mooy féminisme hmm. ta définition large du mot féministe loolu la macha allah ci loolu yow buñ la waxoon léegi Du côté féminisme Nous disons qu'il y a des batailles engagées les dames font le maximum pour promouvoir la valeur de la femme dans le cadre général yow y non, ban ban interrogation ou fay def diagnostic nga vous defal. bu ñuy cadre De la la question que je me pose en premier c'est ndax jigéen ramener xam nañu valeur naka Imam Moussa doon waxee fii. Imam Moussa Gueye nee na ndax jigéen xam na boppam. c' est très important. Hum, interrogation importante. ah oui c' est très important ndax jigéen dafa am ci société bi ñetti rôle. à ah. la fois. quels sont ces trois rôles. jigéen dafa am un rôle familial dafa am un rôle économique dafa am un rôle communautaire hum. su ma la koy faram fàcceel dama naan la le rôle familial jigéen mooy jux hum. mooy yar jigéen moy le soutien émotionnel de la famille jigéen moy art, moy yir. ci biir kër gi mo moo am le rôle économique Moy transformer moy jël dugub bi sokko ko def ko sankal, def ko araw def ko Mo koy jaay Mo koy jaay donc tout tourne autour de la femme le rôle économique de la femme Mo am tam le rôle communautaire Tay gox dugu, dugg lepp lu fa way samp bu ci jigéen ñu bokkul du neex te gox boo dugg mbootaay boo fa fekk jigéen ñee ko yox bu ñuy set setal jigéen ñee ñëw bu ñuy xumbal jigéen ñee ñëw bu ñuy ngénte bu ñuy takk bu ñuy bos mbana yeeg yépp jigéen ñay teew c'est le rôle communautaire. Mhm. gis nga rôle boobu ñu am ñetti rôle yooyu. donc à tous les niveaux de la vie il y a la femme et sa présence est importante. indispensable ñetti rôle yooyu jigéen ñi am. Mhm. suñu ko xamoon le poids que ça a sur le plan social sur le plan économique sur le plan politique même Dañu xoolaat seen bopp defaraat seen taxawaay dëggal seen bopp tëral seen bopp. ñoom malgré les batailles li ñuy mëne est-ce que la société elle-même conçoit réellement la valeur de la femme Khadija. xam nga dañu nekk ci société bi nga xamante ni dañu am ay stéréotypes am nu ñu xoolee jigéen ci sanu aada la am nu ñu tuddee jigéen mu am ci yu jekk am ci yu jekkadi li may wax euh, souvent am na sanu ay euh, proverbe yoo xamante ni doo bëgg lu dul taxañ sànni. sérieux ah, par exemple jigéen soppabul ah, jigéen soppabul wóolu ah, j'aime pas du euh, tout mais Kocc waxu ko sax. waaye j'aime pas du tout. Kocc waxul loolu su ma ko waxee ñu reetaan man leen Kocc musul wax loolu. Kocc lu mu wax kon euh, xam nga ñun tradition orale fa ñu amoon bu njëkk ba fa ñu nekkoon. Mhm. gis nga ñàkkul am na ci kenn ku sant Camara rek wala Sylla dégg nga. quand on traduit on trahit. mu trahir lu ko traduire lu ko neex rek. waaye Kocc du wax loolu. jigéen sax yenewul maanaa sax. ndax tey Kocc. doomu jiitle du doom. non c'est des trucs yoo xamante ne même côté entendement ça pose problème. xam nga yooyu yëpp c'est péjoratif. waaw mais doomu jiitle du dom, mais doomu jiitle bi jigéen na ko jur. Mhm. mais doomu le gën na doom. lu wér doomu le gën na doom. doomu le gën na doom. Mhm. kon yoyu nonu, c'est juste des personnes qui ont vécu des expériences malheureuses. Mhm. qui ont travesti l'histoire et qui ont raconté des choses man sama entendement lol la ko jappé et rafet njox ci ni coach. waxul lol waxul lool. gis nga stéréotype yoyu ñu am nga xamanteni day am fu teunk jigen moy tax que jigen ñu bare dañuy limité tay bu ñu jëlee benn bi nga xamante man chaque fois dama koy wax ni euh, bu ñuy wax euh, la scolarisation des filles le maintien des filles à l'école -hmm. mais bo xolé ñu ni taru taaru jigéen -hmm. Uh-huh. ko am 15 ans ñu may la uh-huh. boo waxee ñu ni taru jigen sey ko am 18 ans ñu may la ku wax dem université ñu ni na sey uh-huh. jàng mi amul valeur taaru jigéen sey lañ lay indil comme prétexte mais il faut que ñu jël yenn yi nga xamante ni ki sunu aada la bokk ak sunu cosaan dañ ko wër jël toj na tabax uh-huh. puus tabaxaat leneen maanaam dañ ko wax déconstruire l'enlever carrément. Euh, déconstruire carrément mettre quelque chose d'autre. indi benen tegaat ko. parce qu'il y a une nouvelle génération. et cette nouvelle génération elle a besoin d'autres valeurs. valeurs yi nga xamante ni qui koy permettre que mu éclore. moo vais permettre d'aller de l'avant. mais si nous voulons à chaque fois ñu taxaw ci jigéen soppal te bul wóolu taaru jigéen sëy jigéen amul doole jigéen nangam ak nangam mais c'est tellement péjoratif. Mhm. que yenn ci jigéen ñi ñom dañuy sukkandiku ci lolu rek di wañi sen bop mhm. et daf leen di manqué lu bari ci seen taxawaay psychologiquement day dem ba fay ancré ci sen cerveau bokk ci sen quotidien de vie de sorte que nit koku wala ces ces ces dames là wala ces femmes là duñu amati possibilité de de choix duñ am amati possibilité de décision duñ amati possibilité de de de de de vouloir peut-être un devenir meilleur. exactement gis nga bu ñuy wax ci waxu jigen ñi mhm. y ya souvent ay termes yu may dégg ñukay employé estime de soi. Oh. confiance en soi jigen ñi dañu wax am estime de soi dañu wax am confiance en soi. très important mais estime de soi c'est la valeur que tu te donnes mooy yow natt nga sa bopp peese nga sa bopp ba xam foo toll mhm. mais bu fekkente ni liñ la jox unité de mesure bi ñu la jox pour nga natt ci sa bopp mhm. daf lay wàññi mënoo natt sa bopp ba mu baax ok bu fekkente ni unité de mesure bi nga yor pour natt sa bopp c'est pas le bon c'est pas le bon joxu la valeur yow mënoo jox sa bopp valeur jigéen soppal te bul wóolu taaru jigéen sëy jigéen amul doole jigéen xelam dafa gàtt jigéen xelam dafa sëgg mais bu une unité de mesure yooyu nga am mënoo jox sa bopp valeur et pour nga ci confiance en soi il faut nga am estime de soi xam sa valeur nat sa bopp xam yaay kan confiance en soi confiance en soi mooy gëm sa mais la ngay gëm da koy la connaissance de soi. la connaissance de soi. Le côté coaching bi la déllu daf ci am une valeur fondamentale très importante très importante gis nga bu ñuy actuellement ci jigéen ñi mhm. ci développement des femmes comme li nga ma indi on va aller vers le leadership féminin mais gis nga ma déllu fi ma nekkoon ci confiance en soi mhm. li ngay gëm da nga koy xam mais loo xamul mënoo ko gëm ah mhm mais ko xamul li ngay gëm dang koy xam dang ko war xam. lo xamul mënoo koo gëm mais jigen ñi suñu xamul seen bop xamuñu seen valeur. Mhm. mais fan la jaar ba gëm seen bop ça va poser problème. un grand problème. Mhm. et sama mbokk saalum saalum yi mhm. dañu naan ku xamul sa bop ñu jëriñoo la. saalum saalum yi loolu la ñu wax. ku xamul sa bopp ñu jëriñoo la mais boo xamee sa bopp.

mooy mën a kan mën a kan mën a kan du man rek ak sama tux mën la kan du man rek ak sama jëmm mën a man ak fan la bokk man ak fan laa je man ak man ak fan laa jóge man ak fan la jëm ak man mission vis-à-vis de moi vis-à-vis de ma communauté vis-à-vis des autres donc dafa nekk je dirais bu ñu la personne c'est une entité boo xamante qui regroupe l'ensemble donc bu ci am pilier bu manqué rek dina am dysfonctionnement bu mu def ci étape bi eh, exactement gis nga suñu koy wax ci lu lu simple ci lu ñu mën a expliquer dama naan la day mel ne benn jëmm jëmm joo xamante ni bu benn manqué li ci des sooxe c'est un tout dont tous les éléments sont interdépendants. Ben jëmm la. mais ben bu ci sooxee yi ci des yëg ko. des yëg ko. rek dem ci confiance en soi. te jallo ci connaissance de soi jallo ci conscience de soi jallo ci estime de soi. ngay xam sa bop. Mhm. So xamé sa bop. nga yegg ci xam sa valeur. parce que bo xamul sa bop mënoo nat sa bop il y a des considérations qu'il faut prendre en compte nga sa nga évoluer dem sañ nga sañ parce que xam nga ki ngay gëm kan la ak li ngay gëm lan la mm-hmm. ancrage lu mais malheureusement da ngay gis ñenn ñi ci mm-hmm. dañuy li dafa xew ñep top ci lii ñi ngi ci ñep nek ca motax yu bare day soké est-ce que non la wara démé waxté démé non dafa am préalable dafa am préalable xalé bu judd da ngay jang dañ lay nampal ba nga fex nga tambali di ram jang dox di jog di daanu ba ba ngay man waye bu ñu nee ni cëriñ mbolo jigen ni len tay ngeen ne am confiance en soi ci sommes ci gox. Mhm. ni tay ngeen mel mhm. dañuy ci gox rek ni tay dañ leen di defal confiance en soi gëm sa bop ndax dina non du ndax ngay defal confiance en soi ba duñu ñëmé ndax environnement ba dafa am lu leen dañ lay déglu ba nga ñun la waaw. la nga leen jox donc c'était pas la bonne méthode de stratégie bu baax mbolo bi noonu nga tënk leen ci bëgg leen defal confiance en soi mënul nek waaw xam nga euh, bu dee ci cadre ci liñu jotta xam. ci hmm. sunu environnement. yu bare ci yenn programme yi ñu ngi koy def ñu koy def dañu wax ñëw avec une approche participative. ok avec une approche inclusive. xam nga tay ku ñëw ci gox. ni jigen ñi nga soxla dafa am ci lo leen teunk goor ñi kenn mënu leen beddi parce que jigen ñi duñu génn te tàggoo ñu seeni borom kax tout à fait mhm. kon dañ leen ci wax boole dañu wax ñenn ci nga xamanteni c'est des voix autorisées dañu war xam lañu fa indi lan la mhm. mooy tax ñu ñome bàyyi seeni soxna ak seeni doom ñu dem ca préalable yooyu su fekkente ni que kenn doxalu ko. Mhm. jigéen ñi mën nga leen dajale di wax suba ba ngoon jot est-ce que suñu ñibbee nekkaat ca la ñu est-ce que préalable yooyu noonu buñ ko doxul ba mu sotti est-ce que duma moom mooy indi le plus souvent certaine frustration ba bu ñu bëggee jigéen ñi génn ci yenn mbir euh, les maris sont réfractaires les parents sont réfractaires et ça ne passe pas. mooy li ma la wax xam nga tey.

pour yëkkati leen mais soo ñëwee ñoddi jigéen ñi rek teg leen amaana ñëpp duñu ñëw uh-huh. wala ñenn ca ñuy ñëw euh, dañu ñëwal seen bopp mais la nga leen di la nga leen di jàngal ak la nga leen di xamal ak la ngay partager ak ñoom bu ñu demee dañ koy waxtaane rek suñuy naan ataaya pare nañ ci waaye duñ ko jëfe ndax environnement bi tolloowul ak la nga leen jàngal te préparé wuñu environnement bi pour que la ñu jàng ñu jëfe ko tolloowuñu waxuma méngoowul donc y a des préalables pas méngoowul mais dafa tolloowul. tolloowul donc bu tolloowul rek dafay am défaillance. day am déséquilibre. ok bu tolloowul day am déséquilibre. donc coaching su ci suñ ci ñëwaatee doonul lu yomb parce qu'on parle d'émotion voilà on parle de vécu on parle peut-être ci nit ko xamantene ne li ñu ko xamal bariwul nga war ko mëna a ñëw non pas yobbu comme niñ ko waxé sank mais nga gunge ko. Kursing yombul yombul ndax xam nga nit ku nekk tey nga janoo koo xam ne xamuloo ko yéen gi ngi soog a jàkkaarloo ci benn jàkkaarloo mu wax la bëgg-bëggam fi mu bëgg àgg ak wala mu wax la li ko aar gàllankoor nga jàkkaarloog moom ay question ngay demee ak moom danga koy càmbar di ko càmbar di ko càmbar ba ñu duut baaraam fay metti diko ko bo ba baram fa nga xamni neena nee na ax ah, fii la laal nga laal nga lima soxla ngeen soog a élaborer seen plan de développement seen plan d' accompagnement. plan d' accompagnement boobu di nga duut baaraam ba mu ne la fii mooy fii metti loolu c' est quelque chose qu'on apprend à l'école pour ñu xam ko maîtriser ko wala parce que léegi gis nañu ni y a beaucoup de coach ku jug ni man coach laa préalable loo yooyu naka la nit di def ba. am maîtrise de soi mën a dimbale nit ki nga xamante ne moom moo ñëw di ko wax jafe-jafeem wala jàngoroom nu mu koy lijjante gis nga ñuma di jëkk ci coach mooy écoute écoute mm-hmm. écoute active mm-hmm. wax naa ko taat naa ko temps yooyu ci benn groupe bu ma doon animé ma ni leen La différence entre écouter et entendre. Mmh. la différence. écouter et entendre. Mmh. mën romb musique de sama nopp. Mmh. sabab lu mais su ma toogee ak yow ñuy waxtaan. déglu bi dama écouter mais su lay écouter damay bàyyi xel lepp ci li ngay def damay bàyyi xel ci sa toogaay bàyyi xel ci sa bët ni ngay xoolee bàyyi xel ci sa gestuelle le langage corporel mais dama lay déglu pour dégg la nekkuma di la déglu pour di waajal la ma lay tontoo déglu nit ki dégg ko non pas déglu ko pour bëgg koo tontu je la pour bëgg la tontu. Mhm. dama lay déglu pour dégg la. ba pare bàyyi xel sa langage corporel. c'est très important et ci li nga wax noonu ci lay sukkandikuwaat ñëwaat ci yow. Mhm. nga xam ni la naa defal un feedback nga xam ni dégg la ah kon lii nga wax nii nga ko waxee lii nga bëgg wax kon comprendre ak lii mooy jafe-jafe bi nga xam ni déglu la bàyyi la xel mais dégluwuma la won rek pour que tontu la si immédiatement pour rek moy wax nga tontu na la. est-ce qu'il vous arrive dans des cas nga gis ko xamantene ngeen def ak mom séance nga déglu ko sur le plan langage mu wax sur le plan corporel mu andi un message bo xamantene c'est différent de ce qu'il dit est-ce que ça arrive. oui parfois. Mm-hmm et Bobak, naka ngeen def pour faire la différence xamni ki carrément le langage que que dégage son corps est différent que le langage que dégage sa bouche. xam nga li la wax sank coaching c'est un questionnement c'est l'art de poser des questions gis nga am ay questions yo xamanteni mën lay poser ben question di la poser wat na la mën na la poser wat question bi ñetti yoon ci ni ma koy bitërñee ci ni ma koy tënké ni ma koy ni ma koy waxé mën naa la poser question bi ñetti yoon même question bi même question bi ba juróomi yoon les réponses seront les mêmes walla yow doo xam sax ni que walla parfois mën nga ko xam mais man li ma bëgg a xam mën na am benn mot une laa soxla benn mot laa bëgg dégg ci réponse bi ci réponse bi mais formuler sama question plusieurs fois ba am mm-hmm. mo bi suma ko amul ma xamni côté bobu baxul ma làmb beneen yoon mm-hmm. sha allah ci ci coaching bi batay ñu gis ni y a des notions comme l'émotionnel ñu am comme méditation lolu, yan ban dayo wala ban solo la am ci coaching bi ngeen di def. Ah, man je suis spécialisée en intelligence émotionnelle en EQI 2.0, précisément. l'intelligence nga intelligence émotionnelle boobu ngay tudd dafa actuellement l'union ñuy wax li ñu ay soft skills manam ay jumtukaay yi nga xamanteni ni nit da ka war am le manager le dirigeant le leader le père de famille la mère de famille ñep dafa am jumtukaay ay yu sew sewaan la

mënuma la wax nak moy ci wolof ci tubaab rek laa la ko mën mhm. expliquer mhm. Euh, le néocortex mhm. bobu motax ñi am xel raison di xalaat di def yefu nit moy le néocortex am benen bo xamanteni mi ngi tudd le reptilien moy bi nga xamanteni moy mooy jukko bàyyi bi nekk ci doomu adama moy bi ñuy def bàyyi ma mooy le reptilien am benen bi nga xamanteni moy le limbique boobu mooy émotion mooy laal xol bi mooy tax nga jooy mooy tax nga tiit mhm. mooy tax nga mer mooy tax nga euh, nga kontaan mooy tax nga gis dara euh, am euh, baal ma ci terme bi jéppi mhm. wala séexlu te gis nga juróom yooyu ma la dem juróom benn yooyu ñoo tënk intelligence émotionnelle bi ma lay wax et ce qui fait la personne. voilà. Mhm. Lol moy def nit mu nite. gis nga bo joyé nit ki jooy ndax de bëgg joyeux Joy na ndax bëgg na ko ka bàyyi xel. c'est un message. c'est un message. ok chaque émotion dafa am lu muy wunn ça transmet un message et dafay am lu muy lu mu soxla besoin dafa am lu muy wotal lu nit ki soxla diko xale bi bu bu xale bu joy ñaar xiif na soxla na ko ko faale wala feebar na wala feebar na beneen mhm. ku yooxu da nga tit te bo tité yooxu walu ngay wut mhm. Mhm. ku euh di nga di nga tepp di nga dal di nga manifester di nga manifester te di nga bëgg bokk ak ñëpp on le partage hmm? ku mer

nit ku xamanteni da nous top euh, émotion wam nit ku nit ku la c'est une personne faible mais Adina, dafa dox ba dañu ni légui ñi nga xamanteni dañuy déglu émotion mm-hmm. di bayyi xel sen émotion ba di bayyi xelu émotion keneen ku ñu digalel ñoño gëna am chance nekk ci Adina. bi ñi de façon normale cohérente et harmonieuse. ok mhm. donc l'émotion c'est nit dafa am importance. très importante. tey d'une sa entreprise. Mhm. am na melokaan boo xam ne soo ko melee ak sa ay employé suba soo xëysee seetoo ku mer xooloo kanamu kenn nuyoo woo ambiance bi même si on liggéey bi ñu ngi koy def dana mhm. mais un chef d'entreprise un leader nga bàyyi xel ñi nga am mhm. empathie l'empathie c'est très important. très important le cadre du très important. Mhm. bu fekkente ni yaa ngi nekk collaborateurs nga di xel nga may leen bunt pour ñu agsi ci yow mm-hmm. yaa ngi développer sa ay relations humaines ak ñoom yaa ngi développer des compétences qui sa biir entreprise mm-hmm. mais ñu jëlaat beneen côté ci intelligence émotionnelle tey gis nga dañuy wax le courage d'expression mm-hmm. mooy sa sa sañ wax du ñëpp sañ wax non non mais sañ wax mais nan la ñuy sañ a wax sañ wax mooy dangay wax li la naqari mais nan nga koy waxe fan nga koy waxe kañ nga koy wax. ok loolu mooy sañ wax. sañ wax parce que dangay wax rek parce que tu as envie de parler. non dangay wax dangay wax parce que tu dois parler. dangay nga war a wax. nga war wax parce que am na loo xamante ni doxewul na mu war doxe ci entreprise bi mais fan nga koy kañ nga koy wax ndax tey sa employé bu gisee ne am na lu ko soof ci liggéey bi warna na mën ñëw ba ci sa bureau mu waxtaan ka ak yow ci sañ ko wax bi la bokk mais du la ko wax ci couloir bi mhm. il faut mu trouver un cadre pour ñoo wax ak yow mais solo kay wax nak léegi dañuy dugg ci benen compétence muy assertivité moy nan la koy waxé la façon de le faire. il faut le dire avec respect mhm. mais pas avec agressivité mhm. il faut être assertif ñëw ci sa kilifa demander à rencontrer ses supérieurs. Mm-hmm. toog ak moom jotaay wax li la soof ak respect yooyu ci ay intelligence émotionnelle la bokk ce sont des compétences. de façon critère bu nekk. dafay am day am lu muy reflété voilà. Mm-hmm. et yooyu bu ñuy wax intelligence émotionnelle par exemple dañ koy tënk ni y a 15 compétences maanaam fukki pàcc ak juróom la. bari na mais fukki pàcc ak juróom yi dafa am dañu tënk ci juróomi bopp juróomi bopp yi connaissance de soi xam sa bopp uh-huh. benen bi di communication benen bi di relations humaines benen bi nek maîtrise de soi moy sago noy dalé nit ku dal mën mën natt boppam ci situation lu mu lu nga mën am sago ci sa jëm ak ci sa kàddu uh-huh. benen bi moy nan ngay jëfëndiko ak ñi nga bokkal jamono moy l'attitude face à la vie et eh, yoyu nonu dafa nek ay euh, tombe yi nga xamanteni tay buñu koy xol tubaab bi daf ko conceptualiser uh-huh. def ko ci ay livre jox ko ay def ko ay pàcc de ko tux mais ñun sunu aada ak sunu cosaan yooyu yeb amna fi mais suñu problème moy conceptualiser wuñ ko comme ni ko tubaab yi defee tey mag ñi dañuy wax dañ nit sago nit sago autant on a des proverbes yu nekk trop stéréotypé autant on en a yi nga xamanteni ay valeur le qui peut accompagner qui peuvent accompagner mhm. yu nekk des soft skills comme niñ ñu koy waxee léegi mhm. mën a bunge doomu aadama mën a ba defar nek ni mën fexé ba rafétal nek ni neexal nekkin yi ànd yëpp baax tay nit sago nit sago mhm. tey tay buñuy wax soft skills patience tay ak dal mag ni dañ koy wax

wallaay yàkkamti nañu. bu wér. Mhm. surtout yàkkamti bi sa moo gën a mën a poser problème. mais ñett ñooñu noonu tey entreprise yëpp boo fa duggee dañ koy jàngal seen ay employé la patience tey da ngay nekk ci entreprise yàkkamti yéeg gradé. waay mais dafa am yoon bu mu war jaax. Mhm. Euh, kóllëre gi muy wax mais mooy le mentorat il faut nga nangu ne am nañu la jiitu am nañu la war a mën a wan yoon. ku la jiitu ci néeg bu lëndam woon la. foo toogee fooy toogee. mooy le mentorat. macha allah. développement bi amna solo jangé nañ fi nak tay mom mom cours magistral lañu ñu soxna Khadija defal machallah euh mbokk auditeurs yi déglu Safina ci 98.2 tay nak tey nag Khadijatou Cissé moo nekk suñu gan ñu waxtané li nga xamante ne moom coaching ak euh, li nga xam moy engagement euh, féminin euh, xuusuñu si bu bari sax comme nañ ko bëggono xoussé mais hadija suma ma un peu né le rôle de la femme ndariñu wala soles jigen ci ci société lan la mais la femme c'est la société ah la femme c'est la société Si euh, Taï, société bi nous amul euh, mais la mhm. c'est le rôle familial. nous jux ñooy yar nous bunge ñooy tette sont yaay yi ñooy sont ñi ñoo ne ci école yi hôpitaux yi sont ci marché yi. Mhm. accompagner lepp lu nit di sos bu ci jigéen bokkul du dund du gudd fan du neex te du dem fenn. Mhm. Khadija si sa wax tu m'as dit que la femme est la société est-ce que la femme xam na valeur boobu mu am ci société est-ce que. ñi ngi commencé yeewu ñi ngi commencé yeewu mais il y a du chemin à faire encore il y a beaucoup de chemin à faire mais ñi ngi commencé yeewu et dafa laaj bunge dafa laaj un accompagnement dafa laaj waxtaan yu bare dafa laaj jotaay yu bare et dafa laaj tamit impliquer les hommes parce que sunu société ni mu tëddee. Mhm. jigéen ñi tollooguñu fu nga xamante ni tey ci yenn euh, yenn yenn zones yi am nañu sañ-sañu demal seen bopp il faut góor ñi pousse leen ñeme lo bunge leen ñu ñeme. mais jigéen ñi mooy une communauté bi nga xamante ni li ñu mën li ñu mën dafa doy waax mm-hmm. jigéen ñi bu ñu àndee jigéen ñi bu ñu booloo jigéen ñi bu ñu déggoo lu ñu song dañ koy daan mm-hmm. ndax dañu am doole dafa am lu jigéen ñi wax travailler xam nga bu ñuy wax euh, leadership féminin surtout jigéen ñi dañuy am tendance recopier yi góor ñi doon def loolu la ñu war bàyyi dañu wax mettre en avant seen authenticité jigéen laa damay am tel charge damay am tel soxla damay mel nii damay mel neneen te loolu dañ ma ko war nangul loolu dañ ko war a nangul mais warul ñëw rek elle se conforme à ce qui est déjà établi. non et gis nga tey euh, bu ñuy wax leadership féminin bu ma taxawee foofu souvent leadership traditionnel bi fi pouvoir moo koy ak autorité mais jigéen ñi dañu wax centré sen autorité feneen muy influence. influence waaw gis nga ki la ëpp influence soxlawul autorité soxlawul pouvoir ah fu mu joxoñ ñu xool di nga gis ku yor pouvoir te mënul influencer dara ça arrive nga gis ku yor autorité te mënul influencer dara ça arrive nga gis ku yor autorité yor pouvoir te du influencer dara nga gis koo xamante ni influence am rek la yor ci goxam mais ki yor autorité ki yor pouvoir ci moom lay jaax pour que les messages mhm. jigéen il faut la wax accentuer ses leadership d'abord vers l'influence xam ni que tey ku ci qui la nga côté influence la nga mën qui ci sa qui ci sa askan wax sa communauté sa quartier ces villages parfois elles n'ont pas besoin de pouvoir ni d'autorité et su jigéen xamé lolou liggéey ci dinañu taxawal un leadership innovant et inspirant. mais pour ça il faut que ñu xam ko. il faut ñu xam ko. moy mm-hmm. ñu xamaat seen bop fi ñu ñu xam valeur xam li ñu mën xam capacité moy xam sa bop donc ça ça incite le plus souvent peut-être ci radios communautaire faire des tables rondes sur ça voilà faire faire faire des sensibilisations euh, maison en parler beaucoup de defee ñom ñu xam ni. jóguñu pour di sa diirante ak mbagg góor ñi mais ñoom am nañu beneen penchant boo xam foofu lañu ñu war a një gën a gën a gën a gën a gën a yëngatu pour mener à bien la mission euh, qui est sienne. gis nga ñu ma giirante ak góor ñi loolu moo warul sax di nekk wax. ok du wax parce que bokkuñu bokkuñu physiquement yamuñu. Mm-hmm. yamuñu waxuma ko ci côté wu jigéen lii lay liggéey wala góor lay parce que lépp lu góor di liggéey jigéen na mhm. mais sur le plan de la constitution. waaye jigéen a ngi liggéey lu góor mënul. Mhm. jigéen mooy jux. dëgg bu bu mhm. voilà léegi jigéen ñi dañu wax développer un leadership authentique un leadership qui nous ressemble ne pas copier. un leadership féminin et ne pas copier les modèles masculins. Il y a des modèles masculins que nous connaissons tous, qui ont été éprouvés. Mm-hmm. les femmes ne doivent pas s'inspirer de ça. Les femmes doivent être inspirantes et développer un nouveau modèle de leadership authentique et qui nous ressemble, nous les femmes. Mm-hmm. et euh, un leadership avec notre féminité. C'est très important. Ouais. Pas un leadership masculin, mais un leadership féminin, avec notre féminité. Euh, Machallah, beaucoup d'auditeurs nous déglou 98.2 ci une émission Safi environnement ci sujet la foutu tal danaka l'émission tire à sa fin. Khadija, dan ngay tagatoo ak beaucoup auditeurs en attendant de revenir parce qu'il doit doo fi gëj incha allahu taala. merci Ñoma. dan euh, la ñuy tàggatoo mooy kontaan pour invitation bi ma c'est fii je suis très contente yal na yàlla saxal sa liggéey barkeel ko waxtaan bi neex j'espère aussi que auditeurs yi kontaan nañu et que dinañ ci jëriñu on l'espère de tout que ah, li ñuy wax rek mooy na ñit ñi jàng jàng c'est très important mm-hmm. ci góor ci jigéen bu ñu xeeb dara nañu jàng ñu gëstu nañuy jàng nañuy gëstu mm-hmm. nañuy wut lu dundal sanu xel xel dañ koy dundal te xel jàng moo koy dundal. na ñuy dundal sunu xol nañuy wéetal sunu bopp. méditation bi dugg ñu ci sax. wéetal sunu bopp. Mhm. tàmm di toog ci sunu roq mën a kan mooy tax ñu xam ñun ñooy kan. te daf ñuy delloo si waat ci sunu bopp te daf ñuy dalal. merci à toi Hadijatou Sissé fondatrice Ortan coaching euh, coach de formation professionnelle ICF comme nous avons certifié euh, ak programme nous nga compris, euh, praticienne en PNL n'est-ce pas programme programmation linguistique et méditation ñu dalalon ko tay nak euh, mom soxna Khadijatou machallah euh man mom jangé n'a xawma ma ndax yéen auditeurs yi jàngee ngeen mais machallah j'ai beaucoup appris à travers sa personne mu nek une personne vraiment serviable disponible et vraiment ponctuelle surtout c'est la remarque que j'ai faite machallah diko ñaanal gudd fan ko and ak wér ndax euh, li muy yëngu amna solo lol té bala ñuy xam jëriñ bi ci kanam inshallah taala beaucoup auditeurs yi donc ñu ngi joxante dig dajé ba semaine prochaine inshallah ñu war dajal ak une autre grande dame Ndeye Bouba directrice radio Manor FM radio jigéen ma macha allah moom itam partager ak ñun euh, expérience yi nga dans le cadre de ses activités de son travail euh, ci lolu nak ñu joxante dig de l'autre côté de la baie vitrée ñu remercier Muntaga pour la technique à la